ak benn ndaw ah, moom it ñu ngi ko fekk ci marché bi comme ni ñu ko waxee sénégalais yëpp am nañ Euh, benn benn kàddu gu ñu wax ci xew-xew bi sëñ bi nii nañ la ziar la. waaw ñoo ngi lay fay. Uh-huh. ñoo ngi lay fay. réew mi fi mu toll élection yi waroon a am. waaw 25 février président génn wax assemblée nationale voté ñu def ko ba le 15 décembre. en tant que ndaw lan nga am la wax ci boobu situation. non loolu nekkul yoon. Uh-huh. loolu teguñu ko fenn parce que élection yi ñëpp préparé woon nañ pour war a la kii nii le 25. Uh-huh. bañ ni campagne bi suba la xuma ginnaaw suba. sax la. ñu ne dañuy pousse pousse yi. ñu dem assemblée di ko ba pare député yu bëri yoo xam ne opposition lañu war faa dañu leen génnee dèjà daal fay bàyyi ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci pouvoir bi ñooy war la wote dèjà maa ngi dégg ay seconde la waa ji ay nombre de cartes yu ci ay seconde loolu jinne da kaa mën sax ba nit di ka loolu tegul ci yoon assemblée dañ doole doole la jaay dëgg kon daal yow en tant ndaw jàpp nga ni décision boobu noonu àndoo ci non non mosuma ci 15 décembre léegi a xaar après élection. xam nga loolu tamit normal. dëgg la dèjà moom itam euh, Macky xamoon na ni xamoon na programme bii mu jëloon nii moo tax nangul woon a ibbi université. parce que bu woon manifester dafa lay gën a méttee. moom lii lu programme woon la bu yàgg pour élection yi nii. loolu moom lu leer la. jërëjëf bëgg nañ la. waaw waaw